tax waaw euh, moo waral booy ñi fi ñi tuddee boppam yëpp euh, du lu ñu ñun duñu lu ñu lu ñu bett daal ndax liggéey na lu mel noonu biir kër baayam liggéey na loolu tamit ak ñun si biir dëkk bi buun fii ku xamul Jackson dégg na ko mais it bisu tey màgg na màgg gu nga xamante ne moo dafa tombe nag ñu ngi ñu ngi siy sant yàlla moo tax ndam rek lañ siy ñaan te ndam rek lañ si bëgg te yàlla mi nga xamante ne moom moo ñuy maye ndam ñoo ngi ñaan mu defal nu ndam si bisu le 2 juin bi mu doon sarax bi nga xamante moom la ñu génneel Jackson mu mag ma ndax bis bi tey bis mi ne bis ni ki tey ci la génnoon àdduna bis ni ki tey ci la wax dëgg yàlla ci la ci la dëddoog ci la dëddoog ñun ñëpp mu doon tiis si ñun tiis bi nga xamante ne doonoon na ko le 2 yàlla mu doon mbégte ci ñun bu tey làmb ji jeexee ñu dégg wiiw yàlla may ñu ndam lu sedd guy loo xamante ne duñ ko fàtte Jackson Junior nag Jacksonu ñëpp la Jacksonu àdduna la Jacksonu waalo la Jacksonu buun la Jacksonu géejawaay la di xamal àdduna ni kii waneegul dara xale bii waneegul dara billaahi wallaahi waneegul dara loolu du dara loolu lu ndaw la si li mu mën bi muy jóge waalo di ñëw ndagaaru am na ci lu mu ne màggul bëre dafa juddu si bëre màggee ci yaroo ci ñëw fekk si ñun ñun ñuy dund làmb ñu ànd ak moom ci loolu noon dama bëgg waa làmb xam ni champion dëgg ngi nii waneegul dara te bis bu bis bu bis bu jot dina xëy di leen surprendre te bu teyee bu teyee ca ngoon ba arbitre sifflé digganteem ak Lac Rose dinañ wanaat làmb ni moom am na fi place dina waneen waat ak waa ak làmb yëpp xam ni carrément Jackson Junior am na fi wàll loolu comme ni ko Jackson waxee rek mbër mi mooy wërsëgam la moom moo ko gëm mais loolu changé wul dara changé wul lu mel ni tarfatal ay ni li nga xam ñun moom lañ waajal amul dara lu muy doy si ñun xam nga lu ñu gëm mooy tey jii arbitre sifflé ñu bëre li ñu war a bëre yàlla may nu ndam lu sedd guy ñu ñëw feetu suñu feet mais kanta mu indi kii moom bu ko neexee mën na indi ku ko neex amul problème ñun seetaan nañ fi Eumeu Sène moom ak Gris doo seen combat bi bi ñu deuxième combat bi Eumeu Sène 13 heures muy def direct sol kosam di def direct doog a dem bëri ji amul problème di doxantu loolu du dara te changé wul dara gëri da ko dóor bu muy ko dee mais ëmmaa daan amul problème mais tey jii Lac Rose def démb loolu moom la concerné ñun li ñu def tey moo ñu ñor te si kattanu yàlla dinañ ko dinañ ñëw wane ni carrément kan fulla ak fayda lañ indi yàlla may nu ndam si kattanu yàlla lu sedd guy ñu ñibbiseeg moom biir buun jaar géejawaay doxantu biir biir euh, comico ñëw yëmbal ñëw biir buun toog si kattanu yàlla lu mu gëm la lu mu gëm la kuñ ne kuñ ne kuy sa idole mu ne Balla kuy sa mu ne Lac Lac Lac de Guiers ah koy kan mooy kan mooy kan mooy monument Guédiawaye Lirou Diane confiance du ëpp confiance du Jackson du ëpp ndax lamb mënatu ko dépassé ndax wax nañ ko lu ne moom musul bëre kum tollool ñi mu bëreel yëpp ñoo ko ëpp ñi mu bëreel ñëpp ñoo ko ëpp te bu si nekk nag am na lu mu wane lu nga xamante ne luy tax nit ñi war ko bàyyi xel confiance am du ëpp xam na nu muy jëlee bisi yi te ñi mu nekkal tamit ay responsable la ñoo xam dañoo xam làmb ay nitu làmb yu wóor yoo xam dinañ ko teg ci code teg ko fi ñu ko war a teg ba moom làmb ji si kàttan yàlla du ci am benn benn benn buñ naan su ma yëgoon bu soobee yàlla man bu nekkee man ak man combat bi man dama koy bëre dama naan ko carrément saay Lac Rose ngi nii ku ne xam na ni nit bu xasee am benn opération il est diminué Lac il est diminué xëy na nag poids bee ngi fi wala nangam damay dox ci côté bi nga xamante ne moom lañ diminué di ko cokkaas mu yëngu ma song ko daan ko am côté bi baaxul bi ñun xam nañ ko te dinañ ko dinañ ko doxa maa la ko non amul problème am na côté bu baax bu ko bañee na defar côté bi balaa ngoon waaw tey la tey dañuy wax lépp côté bu baaxul bi la ñuy dox ci kawam foofu noonu dañ koy dox dañ koy jëli dañ koy daan bu soobee yàlla na ko waaj mënu ko bañ bu ko mënu ko bu ko joxee buñ ko songee dina déem a dëgëra fa foofu mënul taxaw foofu mënul poids mënul jël poids am bu njëkk ba mais léegi munatul attaqué mënul koñe mënul gañe parce que wérul maa ko wax moom moo ko wax parce que bu fekkee ni boo dëkkee Fass waa Fass di la supporter nga xam ni Fass ni mu amee influence ci làmb foo jaar wax li nga gëm pour ñoom ñu mën di la Gris Bordeaux ba mu fi taxee ñu ne ko yaay troisième tigre de Fass ku ne xam na ni champion la mais gis nga ni carrément que ni affaire bi diis na diisaay goo xamante ne après il fallait mu taxaw maanaam wane boppam wan ni man maa fi ne donte nag moo fi ne woon mais tey ji moom foo la tool waa Fass dañoo ne kii wér na mais moom il faut mu wane ni moom wér na waneegu ko ñaari combat la fi bëre wala benn ci diggante bi bëri daf fee machine est que am na foofu noonu jàppante bu nga xamante ne poids am dina demee gauche wala mu demee droite nañ bàyyi ba tey ñu xool bu ko booy bi yëngalee après bu fekkee ni yëg génn ci nga xam ni Lac Lac Rose wér na. waaw ñoo ngi leen jaay di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw di ñaanaat yàlla yàlla defal ñu ndam lu sedd guy ñu def ko saraxu Jackson mu mag mi nga xamante ne bis ni ki tey la génnoon aduna waaw. Hmm. waaw man li ma leen wax mooy tey jii képp ku bëgg a gis làmb dëgg ñëwal arène nationale te xam ni Jackson mii mooy champion moom la lamb di xaar te si kàttan yàlla dina leen wanaan ni làmb moom lay xaar waaw ñun suñuy supporter comme li ma wax rek ñun waa Boune xam nañ suñu mbër mooy kan demuñu pour yàq demuñu pour sànni demuñu pour dóore jëluñu alalu kenn defuñu dara xam nga lu ñuy def mooy ànd ak suñu mbër gunge ko si kàttan yàlla yàlla may kon ndam lu seddu guy ñu ñibbi si parce que xam nañ ni moom du guddeel amateurs yi du ñu tardé du ñu sonal du fa nekk di waaj naan day def ay lu kenn xamul li mu war a def lay def làmb ji jeex ñu ñibbi ci kàttanu yàlla te yàlla nañu yàlla may ndam encore une fois di sant ñëpp gërëm ñëpp. ok yi abonné leen na leen ko bu baax a baax di ko abonné ndax lii nii moom mosoo leen ko gis yaakaar naa ne mel nii tey di ngeen ko di ngeen gis lamb ju wele mësu gis si àdduna Jackson moo woote te bu Jackson woote mu tombeek nga xam mooy mu mag mi sa waay ku tardé rek tardé nga lu rëy. waaw. waaw bon ñoom loolu la ñu waaw bu ni ñu taxawee nii. Jackson moom mënatul dem leneen mënatul dem feneen mënatul leneen nii rek lay demee dem open press géejawaay ñëw ngemboo buun jaar géejawaay ñëwaat buun. duñ ko yàq open press bi léegi open press bi dañ leen ko bàyyee. Ah. waaw léegi nañ jël open press ñun ñu jël làmb jeeg. jël ñibbi si yëpp ah. tey daal dinañ fa jaar incha allah. Hmm. waaw xam nga làmb dafa dafa yaatu ay relation yu doy waar moo si am am na ñoo xamante ne dañuy sekk leneen lu bokkut ak làmb kese te ñun ak ñoom dañoo sekk leneen lu dul làmb xam nga mu nekk suñu frère aussi ñu xam nga mënuñu lu dul sant ko gërëm ko si parce que mënoon na mënoon na ko nëbb mais dafa am loo xamante ne ci deret ba la dañu dañuy bokk dañuy sekk ay mbir yu nga xamante luñ mënta séddoo la ñu bokk ko nag moo tax il faut ñu koy wanante di ko doxalante loolu kese la mais di ñaanal tamit grand bi euh, Lac de Guiers 2 di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yàlla gaaw a nit leeral ay mu dellu siwaat si njabootam parce que am na solo waaw di sant ñëpp nag